asalaamaaleykum mbokk internet Thiès Dakar yi ñu ngi leen di nuyu di rafet ànd ak teewlu bi ngeen di teewlu seen chaîne YouTube bi di Thiès point net ak internet bi di Thiès Dakar point net tey nag c'est à la une bi dinañ ko tolle ak tolluwaay mbas mi di Covid 19 fii ci senegal ca Yoff Village nag ab góor jigéen lañu fa teg loxo démb ci dimanche bi ginnaaw bi ko ay xale yu góor lalalee ab piège pour jàpp ko livré ko gendarmerie nationale marine nationale nag tey xëy na fësal ci ab communiqué ne dañoo xar ab bato boo xamante ne day transporte li nga xamante ne mooy drogue biir bato boobu noonu fekk nañ ci lim bu ci drogue bi ñu tuddee hashish ba ñetti nit ñoo ci nekkoon jàpp nañ leen dinañ ci ñëwaat ak yéen ci biir information yi journaliste bi di Cheikh Yérim Seck nag xëy na tey ne day def ab conférence de presse bokk ci ñi nga xamante ki ki nga xamante ne moom la ñuy wax ci viol bee nga xamante ne moo am buur ci semaine bi génn bañ ciy cité lu bari mu décidé woon def ab conférence de presse ci ginnaaw gi dikkaat na sànq ne dafay retracté wu conférence de presse boobu da koy annulé ba beneen yoon soo leen taaxurloo ñu yaatalal leen comme ni ñu leen ko waxee woon ci ponk bi bas mi nga xamante ne mooy covid 19 tey ministère de la santé xëy na fësal ci ab communiqué ne ñaar fukki nit ak juróom ñoo ci ñoo dollu ci limib ñi nga xamante ne ñoo yor bi juróom fukki nit ak ñaar jot nañ ci war ba dellu seeni kër ñu ngi woyal def wéer vaccination yi fii ci biir réew mi ñu wax ci coow li nga xamante ne moo am ca Yoff Virage ci weekend bi benn xale bu góor moo fa piégé ab libérien boo xamante ne mu ngi woyoo ci turu Johnson ndax nee na xale bu góor bi daf koo commencé woon di envoyé ay message yoo xamante ne da ko xawoon a jaaxal ci diggante góor ak góor ci noonu la ko invité pour mu ñëw yoof këram yoof village bi mu ko fa fekkee nag ñu dugg ci biir néeg bi commencé waxtaan waa ji commencé di ko raay ba bëgg koo fóon ci la alerté xaritam yi nga xamante ne waxoon na leen ñu toog xaar ñu jàpp waa ji dóor ko ba mu sonn ñu takk ko woo gendarmerie pour mu ñëw jël si ko bi gendarmerie ñëwee sax jàpp ko moom kese moom mi nga xamante ne mooy libérien bi di Johnson ñoom ñëpp la gàddu yóbbu ndax neneen suñu demee faaw ñu déglu leen Mass Ndiaye toll woon ci ñaar fukki at ak juróom moo xëy xaru fee nga xamante ne mooy technopole ne bii passé moom nag acte boobu bi mu koy def nag nee nañ am na ay nit yu fa nekkoon dafa jékki saa rek daw jubal ci dex boobu nga xamante ne moo nekk technopole yuuxu allahu akbar daal di daanu gendarmerie moo mujjee repêché lii nga xamante ne mooy ab néewam bi ñu laajee nag kenn ci membre famille wam di ab maamam bu góor moom xamal na ne loolu du lu bees ci famille bi avant mort moomu am na ñoo xamante ne mës nañ faa xaru

Faye Gassama pour def ay test avant ñuy continuer procédure bi nga xamante ne moom la yoon tëral depuis jeudi passé nag ab article la Seneweb xëy fësal di wax ci histoire boo xamante ne viol la mi ngi amee fee ca Mbuur ci ab xale bu jigéen boo xamante ne non d'emprunt bi ñu ko jox ci texte boobu mi ngi tudd Oulimata fikk at ak juróom la am di jàngee ci binn lycée nekk en classe de terminale moom nag dafa porter plainte ki nga xamante ne mooy doomu nee nañ benn journaliste bu mag fii ci réew mi nga xamante ne moom sax journaliste boobu jinoon nañ ko fi viol ba tëj ko fi ay atu ko so mu tëdd ko ba génn moom nag bi mu defee loolu nee na depuis nag nekkatul si jàmm selon texte bi li mu wax texte suñu concert bi nga xamante ne moo nekk Seneweb parce que nee na menace de mort sax jib na ci affaire boobu noonu ba famille wam sax dañ leen a jéem a noppiloo presse bi ci jëmmu boppam sax jiiñ nañ leen ne dañ cee noppi traité wuñ information bi ni mu waree si noonu Cheikh Yérim Seck xëyoon na tey décidé bi midi di jot ne day def ab conférence de presse ndax turu doomam ñu ngi koy tudd fu nekk di ko tuddaale moom moomu ci ginnaaw gi deux heures de temps après ñëwaat na désister ne carrément conférence de presse boobu noonu dañ koy reporté ba beneen date ultérieure lu ci yees si nañ ñëw ñu waxaat leen ko ñu ñëwaat ba tey ci coowal ki nga xamante ne mooy Wally Seck ak ay fecckatam ñoom ginnaaw bi ñu leen inculpé weekend bi passé ci samedi bi yóbbu leen garde à vue ci ñi nga xamante ne suñu confrère lañ te ñoo jot traité li nga xamante ne mooy seen procès baar nee nañ ñoom ginnaaw acte spontané bi nga xamante ne moom la ñu waxoon ne moom lañu def ñëwaat nañ ci seen ay wax ne benn. Euh, seen boo xamante ne la ñi nga xamante ne ay comédien lañ te tuddoon Siriki ak Suke ñu gënoon leen a xam te ñu ay ko doon def ñoom lañ doon jéem a toppandoo moo tax ñu def loolu mais jubluwuñ ci woon ba tey nee nañ dara ju ñaaw génnaguñu nag seen garde à jeexagul lu ci amaat tamit dinañ ñëwaat waxal leen ko fii la ñuy yemate ak yéen tey ci sa à la une bi lu am lu bees information dinañ leen ko andil di rafetlu seen ànd ak teewlu bi ngeen di ànd duñu jeexal nag te duñu gërëm suñu confrères yi nga xamante ne ñoo demoon fële ca Kaolack ànd ak ki nga xamante ne mooy gestionnaire bi ci Dakar di Abdoulaye Khouma mu doon amal foofu ab tournée ñu tuddee woon ko fa ab làmb ginnaaw làmb bi dem na ci ay pouponnières def fa ay don ñuy rafetlu seen liggéey bi nga xamante ne def nañ ko foofu di leen waas massawu coono bu baax di ñaan yàlla lépp lu ñu ci wut yàlla defal leen ko jële ngeen jëf